amna na diine bu nekkee si man gisuma leneen la xam am war na manqué na ko nit mën waxal tukulor Fuuta la gis récemment yagul ay nit di sàcc beta ki ay euh, comment dire des euh, vol de bétail yi nii ñu jàpp leen dagg seen loxo comme ni ko dina waxee man Fuuta la ko gis li wax yagul matul 3 mois c'est-à-dire pour wax juste pour wax leen ni ñooñu dañoo am ay valeur am lu ñu gëm kon Macky Sall image mi muy prôné li muy doxal Sénégal lolu du image du Fuuta alhamdoulillah amna ñoo xamni ne mën dimbali ci wane ni image du Fuuta du lolu Macky Sall di wané léegi dañuy ñëw si Sénégal kër gu amul kilifa Sénégal dafa dañ toll Sénégal bo xamni ni kër gu amul kilifa la kër gu amul kilifa nak day am fi ñuy jaay yamba am fo xamni amul buntu kër heure bu neex ngay baali Fofu la Sénégal toll ak Macky Sall en réalité parce que du leader du responsable Légui nag bu fekké ni askan ñu ko fal mom nekkul ki ñu fal matewul li mu doon devoir la ci ñun ñu juk. dem récupérer li ñu moom récupérer suñu Sénégal balaa Macky Sall diko yaq. Tax essayé ne ko nu ne Aliou Dunguru Sow di wax waxi jaasi fii lu nekk def nañ ko pour indi problème entre Haalpulaar yi ak ñeneen ñi te loolu amul Sénégal mënul nekk Cheikh Omar Foutiyou amul fu mu tegul tànkam ci ci ci Sénégal ci kër këru sëriñ sëpp teg na fa tànkam ñaanal leen avant noir, waajur avant ñoom ñuy ñëw fii loolu ñëpp xam histoire Cheikh Omar Foutiyou donc Sénégal benn ne la kenn mënu koo xar ñaar le message est très clair mooy ñun dañuy jug jàkkaarloog Macky Sall que amul benn parti politique boit comme ni moo tax moo nekk si ginnaaw kenn waa Fouta ñoo am seen problème Sénégal nous am un problème jug di ko lijjantil un bopp

ñu bàyyi xel ni le le 23 juin Inch'Allah, allahu rabi Aliou mercredi mercredi bii la dañu joxe rassemblement bu mag ñu ngi war a dajee. Euh, waaw en euh, terrain HTM Grand Yoff. en face stade en face stade bi. fa la ñuy defee manifestation parce que xam ngeen entre M23 mouvement entre M23 bi nga xam ne M23 wu Macky Sall bi ñoom dañoo njëkkantu ak ñi nga xam ñooy xeexal Sénégal dem dugal fa déclaration boo xam moo tax ñu occupé place de l'Obélisque léegi loolu nag moo tax ñuy def yi pour wax rek xamal leen ni M23 ñun ñoo ko moom ñun ndax 23 juin def na 10 ans ñun ñoo nekkoon foofu ñu jàpp ñu man kilifa mi ñun ñoo fa nekkoon kon ñun gisuñu keneen koo xam ni moom taxaw na image boobu noonu gën ko 23 juin Sénégal yëpp ko moom Sénégal yëpp nous donc may wax ni nañ nañ ko nit ñi bàyyi xel ñu ànd ñun ñëpp manifesté wu di invité waa Fouta Tampi mouvement yëpp ñu ànd wane rassemblement boo xam nous wane ni tey la waalo gën a aay Sénégal li ñu doon jooy tey la gën a metti te dara changé wul te ñun ak Macky Sall ba mu quitté pouvoir bi ci nii wala ci ne troisième manam bëgg ko fi am dañ koy wulli mu jóge fi jërë ngeen